أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk julit yi ñu ngi ànd ak yéen ci xare mu'ta tey ñu ngi jël nataij maaraka mu'tata résultat yi nga xam ne jullit yi àndoon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam jële nañ ko ci xew-xew boobu nga xam ne moom mooy mu'ta mbir yooyu boo koy wàññ dana toll ci ñeenti mbir bi ci njëkk mooy kaanat maaraka mu'ta maaraka istitlaiya arafat almuslimina kasiran min xasais قوات الروم وأساليب قتالهم xew xew boobu mbokk yi nekkoon na xare boo xam ne xare dañ kumpa la woon découvrir xare xam-xam boo xam ne jullit ñi jële nañ ci xam-xam boo xam ne xam nañu romain yi naka lanu mën a xeexe xam nañu seen doole ak lañu mane ak façon ba ñuy xeexe moo tax fastafaadu min haadihi almaalumaat li maarika almuqbila ba ñu demee ba peeg romain yi ni nu manee seen doole nu mu toll yan façon arme lañ yor ban anam lañuy xeexee ñoom jullit ñi ñu daal ciy jële njëriñ njëriñ koo xam ne dimbali na leen ñu préparer yeneen xeex yi ñëw pour mën a xeex ak romain yi loolu mooy lu njëkk ñaareel bi tuutabar maaraka mu'ta danañ jàpp xeex bii di xeexu mu'tata expérience première générale ci jullit ñi bu yàlla bu yonent bi yónni mu jiite jullit ñi muy Xaalid ibnul Walid première expérience am mu dem di xeex ak romain yi première bu ko yonent bi yónni mu jiite jullit ñi dem di xeexi ñu ne kon dees na ci jànge Xaalid naka la ma ne dafa jébbalu rek baada islaamihi rek ba mu tuubee rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di koy jiital aa ba loolu amee fa asbatat fa asbata anna alqiyaadata al askariya al muslima qadiratun ala rasmi al xutat wa tanfisiha bi najaax kon loolu jural na ko moom Xaalid ginnaaw ba mu jiitee armée bi nga xam ne ay jullit lañ mu tëral ay plan de guerre yoo xam ne rëdd na ko mu exécuté ko mu daal di réussir loolu jàng nañ ko ci xeex bi nga xam ne mooy xare Mu'ta yonent bi jël na benn waay bu tudd Xaalid ibnul Walid ginnaaw ba mu jébbuloo jiital ko waa ji jiite jullit ñi rëdd xare bi exécuté ko daal ci am ndam moom Xaalid dem na sax ba jommal kàngam yi nga xam ne ay romain lañ qad azhalat kibaaru quwaatu ruum baada zalika jaaxal na sax romain yi waa ji yan yoon la jaar yan moyen la utiliser ba gañe leen ñoom vraiment jaaxle nañ jommi nañ lépp lu ñu tëraloon ci ay yoon ci ay xew-xew yàlla nattu na leen ba waa ji daaneel leen daal di ñël ndam mi seen kaw loolu daal jaaxal na leen trop trop naka la mun a amee mbokk yi waaye mimma jaala ruum yaxsabuuna alf xisaab lil muslimin Xaalid yàlla dimbali na ko ba loolu waral tey romain yi ñuy lim ay junney junney junney junney junne ci ay jàmbaar yoo xam ne ay jàmbaari jullit lañ mbokk yi beneen bi nga xam ne moom lañ ciy jëlee muy ñetteel mooy naka ngeen mën a imaginer naka ngeen mën a gës gëme salaasata alaaf muslim ñetti junney jullit jàkkaarloog téeméeri junni yéefér daal leen di gañe est-ce que loolu xel rek rek rek rek nangu na ko ñetti junniy jullit jàpp téeméeri junniy romain duma leen gañe leen loolu naka ngeen ko mën a nangoowee loolu loolu nag lañ ciy jàng mooy dafa bokk ci ay dalil yuy wane ala annahum lam yuqaatilu illa li mabda saamin ñoom jullit ba ñuy xeex lu tax ñuy xeex mooy principe moom lañ doon xeex mooy seen diine lañ doon xeex xeexuñu ngir nguuru xeexuñu ngir benn parti xeexuñu ngir ñu mbooloo xeexuñu ngir deret xeexuñu ngir couleur dañuy xeex pour kawel kàddu yàlla loolu moo tax ñu mën a dékku li gaay di bari bari bari bari bari julli di dékku leen ñetti junni dékku téeméeri junni looloo tax jullit ñi jóge fa seen xabaar tasaaroo ñépp weg leen tiit leen ragal leen ndax ñetti junni bu ñu dóoree téeméeri junni dëgg dëgg dëgg loxol yàlla moo nekk ci biir ndimbalal yàlla kàttanam jàppaleem moo feeñ ci loolu jullit yi gëm gi ñu gëm ne yàlla ñoom la àndal yonent bee leen yónni kàddoom la ñuy exécuté ji loolu mbokk yi jàppale na jullit yi ba jullit ñi am ndam islaam daal di tasaaroo ci biir qabaa'il yi qabaa'il yi nga xam ne ñoom ñoo waroon li wër gox boobu ñu doon xeex yépp mimma saada ala nasri lislaam loolu bokk na ci mbokk yi li tasaare lislaam ba moo doon ñetteelu tomb bi ñuy jàngat résultat yi jullit yi am ñeenteel istataa xaalid ibnul walid xaalid ci boppam yàlla dimbali na ko ci xew-xew bii an yanqazal jaysal islaam ba mu sauvé armée islaam bi ci ay war yuñ leen naroon war ci ay nit yoo xam ne ay naafiq la ñu nekkoon ci biir yu nar a simmeeku ñoo ñëpp soril na leen war yiñ leen naroon war feeñal na ko looloo tax mu ngëpp xare bi ci loxoom jiite jullit ñi dëgëral seen pas-pas delloo leen ci seen boroom ba ñu xam ne yàlla rekk moo jar nit di tuur deretam mbokk yi lii dimbali na keroog Xaalid ibnul Walid ba mu sauvé jey sa islaam armée bi nga xam ne ñoo nekkoon ay jullit nekk ci ginnaawam ñeenti tomb yi moom mooy résultat wu xeexu muuta bu ñu ñëwee ci ibariha yan waaru yan tomb lañu war a teg sunu baaraam lan lañ ci war a jëlee bi ci njëkk mooy jullit yi inna almuslimiina laa yuqaatiluuna aduwan bi adad walakinahum yuqaatiluuna aduwahum bi imaani sadiq mbokk yi bokk nañ ci liñ ciy jële mooy jullit yi xeexuñu woon ak seen noom seen noon ci mbooloo pour lim mbooloo déedéet ñoom ba ñuy xeexi bàyyiwuñu seen xel ci mbooloo ñoom dañ doon xeex ndax ngëm gu dëggu mbooloo yóbbuwu leen su leen mbooloon doon yóbbu rek ñetti junni duñu xeex ak téeméeri junni waaye ndeke jullit moom lépp lu muy dugg lu mu ciy jiital mooy ngëm gu dëggu wa ragbatihim fil istishaad ñaareel bi mooy xemmeem gu ñu bëgg dee dajeg yàlla allahu akbar bëgg dee dajeg yàlla wal mawtu fi sabilillah ak dee ci yoonu yàlla ndeke jullit ñi ñetti mbir yi moo taxoon ñuy xeex ngëm gu dëggu xemmeem dee ci yoonu yàlla shahid ak dee ci yoonu yàlla tabaraka wa taala loolu mooy njëriñ bu njëkk mbokk yi bu ñuy jëlee ci maaraka mu'tata bokk na ci encore xirsul muslimin ala wadi rijal al munasab fi makanin munasab xëru jullit yi bi nga xam ne xër nañ kenn ku nekk ñu teg la sa place ku nekk ñu jox la li nga mën loolu tamit jullit ñi wax dëgg yàlla war nañ koo xam nit ku nekk daal ci jamono dañ laa war a jox li nga mën bu fekkoon ne tey lislaam bi noonu lay demee ku nekk ñu jox la li nga mën te kenn du tumuraank waaye da ngay ñëw sax ci jàkka nga fekk koo xam ne wax dëgg yàlla buñ doon teg ku nekk ci palaasam ci jàkka ji waa ji warul jullee sax ci biir jàkka ji ñu ko war a génne sax tabax bi waaye ñu def ko imaam waaw tey loolu moo ñu tardeel au lieu ñu jox ku nekk li nga mën déedéet day fekk koo xam ne mënul xamul jàngul tariwul ñu fal ko jiital ko ci lépp nag waaye keroog mu te jullit ñi jàng nañ ne góor gu war a nekk place yaa fi war a nekk ñu jox la sa place waaw ku war a jiite fala yataqaddamu lil qiyaada illa man huwa ahlun laha kenn warul jiite jullit yi lu dul ku ko war a jiite kenn warul taxaw ci poste bi lu dul ku fi war a nekk ngànnaayu sàngam kenn waru koo yor lu dul ki ko war a yor keroog jullit ñi jàng nañ ci xare bi ñaari mbir yi jàng nañ ci encore keroog mbokk yi inna alxibra al askariya bi fununi al xarbi la tuqillu ahamiyatin an il adad al kabir jàng nañ keroog mooy xereñ ci jiite armée jullit yi ak façon wàllin yi ñuy xeexee luñ ko jox importance importance buñ ci boole mbooloo mu rëy ndeke mbir yi du mbooloo mbir yi du arme yi ci loxo yi mbir yi pas pas la bu nekk ci xol ay nit dinañ am mbooloo ñu duma leen ay nit yor arme yu sophistiqué ñu duma leen kon mbir yi ci pas pas lan moo tax ngay xeex lu tax ngay wax lu tax ngay dem lu tax ngay jëf lu tax nga toog lii mooy mbir mi beneen bi mooy mbokk bi mbokk yi mooy raam wommutu ginnaaw ba mbir yi amee xad yakunu nasran yàlla mën na cee def ndimbal daat ci am wa bi xaas sa rawatina nag ki nga xam ne moom moo dimbali keroog armée jullit yi ba alkuwuñ loolu rek dëgg-dëgg njàngin bu rëy rëy lañ ci war a jëlee beneen bi mooy alal muslim an yansaha axaahu bi sabat inda nuzulil mihan jullit bu ne war ngaa jàng ci di laaye si biir say mbokk ci ñu dëgër su nattu ñëwee nattu du ñëw ngay yedd julli bi naan ko yaa ko def xamoon nga ne doo ci génn xamoon nga ne waroo dem xamoon nga ne waroo wax xamoon nga ne waroo toog nattu su ñëwee waxal sa mbokk yaa nekk ci dëgg même boo ñàkkee yaa nekk ci dëgg même boo daanoo yaa nekk ci dëgg buñ la dàqee yaa nekk ci dëgg bi nga toogee yaa nekk ci dëgg ngay dimbali sa mbokk waaye mu mu perte nga ñëw di ko ndokk xamoon naa ko waxoon naa ko loolu kenn du ko wax sa mbokkam jullit laaye ko biir ci xamal ko ne saxal ci sa place resteel nattu la rek yàlla lay nattu waaye du dërëm beneen bi ñuy jeexale mbokk jullit yi alqaidul muslim yataassar bi faqdaani ahadun min junudihi ku jiite jullit ñi ku mu mën a doon soo perte benn jullit war nga kaa yëg tey rek ngay gis jullit ñàkk jullit kontaan mais démb ci lislaam jullit ñi bu ñu ñàkkee kenn ci terrain bi ñoom ñëpp ñoo koy yëg parce que ay jullit lañu woon tey nag ay jullikat lañ rek jullikat nag ak jullit du benn démb jullit ñi dañ doon métit lu bu jullit amee métit tey jullit ñoo jullit ñi feetu bu jullit amee naqar démb jullit yi dañ daan yëg coono bu seen mbokk sonnee démb jullit ñi dañ daan am naqar bu seen mbokk amee naqar tey jullit ñi dañuy noos di zibile ci jamono ju ñuy rey seeni mbokk moo tax ñaari ñaari jamono yi mënuñoo nekk wa haza huwa talaaxum al fi'li bayna al qaa'id wa junuudihi li war a dox diggante soldaar bi ak ki ko jiite diggante jullit beeg ngiitam mooy diggante yaram la ak cër yi moo ko waaye cër bu metti yaram yëkku masalul muminin fi tawaddihim wa taraxumihim wa taatufihim ka masalil jasadil waxid ida staka minhu udduw tadaaca lahu saa'irul jasadi bi sixri wal xuma ki yàlla yónni woon ci jaam ñi nee na misaalu jullit yi ni ñu war a jàppante ni ñu war a bëggante ni ñu war a yërmante ni ñu war a àndee ni ñu war a nekkee benn dañoo war a mel ne yaram yaram bu ci benn cër yëngoo yaram yëpp yëg ko yéen samay mbokk ci tomb bu mujj bi ci njëriñ yi ñu war a jële ci xeexu muuta fi la ñuy leen di tàggu incha allah bi iznillahi tabaraka wa taala ba beneen dimanche ci waxtu wi incha allah ñu ñaan buur yàlla tabaraka wa taala mu def ci ñun dégg ak topp asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yal nañu yàlla boole njëriñ bi amin yal nañu yàlla fay ñun ñëpp jazakumullahu xayran waaw mooy mu'tad waaw dañoo dajawaat dañoo dajawaat waaw xeex nañ sax xeex nañ aussi avant l'islam di ñëw diggante ñi gëm yàlla ak romain yi mooy ba yonent bi di wax Abu Bakr fararal romain yi alif lam mim xulibati ruum boobu nag du woon jullit yi waaye ay nit yoo xam ne amoon diine pas-pas yàlla yonent bi daal di wax Abu Bakr mu faral romain yi parce que romain yi ñoo amoon iman aywa incha allah bis waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu